sëriñ moo du Lo sëriñ Modou Mati Lo mi ngi feeñ jamono ci atum 1903 ci dëkk bi ñu tudde nag ndaam gu rëy ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1903 di doomu sëriñ Mor Absa Lo ak soxna Mati Ba moom sëriñ moo du Lo nag bi mu feeñee jamono ci atum 1903 ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul la ko waajuram nag sëriñ Mor Absa Lo nag yëgaloon Cheikhul Xaadim itam nag moo joxe aw turam wax ne nag nañ ko tudde Muhammadu moo waral nag ñu koy wooye nag sëriñ moo du matiloo ndax waajuram wu jigéen wi tudd soxna Mati Ba ñu mbokkal nag soxna mati ba ak sëriñ moor absa lo ñu ràññee ci maam ceerno loo ibnu soxna mati ba ibnu sëriñ moor absa lo sëriñ aas loo ibnu soxna mati ba ibnu sëriñ moor absa lo sëriñ axma loo ibnu soxna mati ba ibnu sëriñ moor absa lo ak moom sëriñ moodu mati loo ibnu soxna ba ibnu sëriñ moor absa lo ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ moodu mati mii ñu wax leen nag waajur yi ko meññ nag ñoom ñooy ñan waajuram sëriñ moor absa lo ci jàmbaar yi toppoon ku baax baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul Seexul Xaadim itam nag moo ko dëloon njaareem Seexul Xaadim itam nag waxoon na ci moom ay wax di ko xamal ne ndaamal daaru bay boo ngeen fasante ak kóllëre ndax nag yéenay bokk nag menn at mu ngeen génn àdduna weer wa itam nag wenn la fan ya itam nag du soree moo tax it nag ñetti jàmbaar yooyu diggante alximis la ba talaata seenub sorente ba tey waajuram nag sëriñ Moor Absa Lo demoon nag gànnaar nag fekki Seexul Xaadim Seexul Xaadim itam nag def na ci moom itam ab ndénkaane ba bis boobu ko Seexul Xaddim gërëmoon ci gànnaar moom sax la ñuy fàttaliku waajuramam wi ba tey itam nag diggante sëriñ Mor Absa Lo nag mi waajuru sëriñ Modou Mati ak Seexul Xaddim Seexul Xaddim itam nag wóolu woon na ko ba jumaa njaareem ji itam nag biñ koy tabax bokkoon na itam nag ci ñi dencoon xaalisu jumaa ji ba tey diggante waajuram sëriñ moor Absa Lo ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim laataa Seexul Xaddim nag di fi bàyyi ko dénkoon na ko nag am dénkaan di ko wax ne na nga am fullay nag bu ko jox nag ku dul borooma jàmbaar jooju nag moom meññ nag sëriñ Modou Mati mii nag ñuy waajuram wu jigéen nag di soxna Mati Ba ci famille buur nag la bokk mi ngi cosaanoo itam nag ci dëkk bu ñuy wax njeer njeer itam nag mu ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax sànjaxuur ci suuf si nag di kajoora ci famille buur bi nekkoon foofu nag ci la soxna Mati Ba mii nag bokk bi ko waajuram nag di jébbal sëriñ Mor Absa Lo fukki jigéen ak ñaar nag la ko booleeloon wala fukki soxna nag ak ñaar nag la ko booleeloon ngir nag ñu ànd ak doomam jooju ci kër sëriñ Mor Absa Lo boole ko géttu xar nag ak géttu bëy ak lu ñu yoroon ci wàllu takkaay sëriñ Mor Absa bari na ci ñoo xam ne nii itam nag soxna Mati Ba jébbalaat na leen nag sëriñ Mor Absa Lo nag ngir sëriñ Mor Absa nag dëkkoo leen ñaari jàmbaar yooyu nag ñoo meññ nag sëriñ Moodu Mati bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Mor Absa Lo nag moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag di ndaam gu rëy ginnaaw bi nag lañ ko jébbal sëriñ Moodu Kodde Diop ci dëkk boobu itam nag di ndaam mu wéyal nag ak njàngum alxuraanam ginnaaw sëriñ Moodu Kodde Diop moom nag ci ndaam loo waajuram sëriñ Mor Absa Lo itam nag jox na ko nag sëriñ Matar Bintaloo loo nag la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim moom sëriñ moodu mati loo sëriñ moodu mati loo nag bi mu nekkee nag ci loxo loxoy sëriñ mataar bintaloo daa yéex a mokkal alxuraanul karim doomi baayam yiñ ko booleeloon nag ngir ñu jànge nag ci mataar bintaloo mokkal nañ nag ba bindub kaamil bi leen sëriñ moor bintaloo nag di indi ci seen waajur nag sëriñ moor absaloo la ànd ak sëriñ moodu mati mii ñëw nag di xamal nag sëriñ moor absaloo doomu baayam yi di sëriñ moodu faaloo ak sëriñ saaliw loo mokkal nañ alxuraan nag ba bind ko moodu mati loo mii nag mokkal loo të ci la sëriñ moor absa loo nag woolu nag waajuru sëriñ moodu mati loo di soxna mati ba di wax nag ndaw li nga xam ne nii nag moom la sëriñ moor binta loo yabaloon na ko waxaatal nag li nga waxoon ndaw la nag di xamal nag sëriñ moor absa loo di ko wax ne daal doomu baayam yi daal mokkal nañu alxuraan bu bind moom mii daal di moodu mati mokkal alxuraan nag da koo të loo ko jàngal tey daal bu subaa mu fàtte ko la sëriñ moor absa loo wax nag soxna mati ba dégg nga nag li kii wax ci la soxna mati ba nag jóg nag dem xool nag ab dencukaayam indi nag lam dese woon nag ci xaalis ak wurusa ak lam dese waxtaan nag ci ay xar jébbal ko nag sëriñ Mor Absa Lo di ko xamal ne nag moodu Mati mii nag jënde naa ko nag am xelam ci la sëriñ Mor Absa Lo nag doon xamal nag soxna Mati Ba ku ñaan ñàkk su jëndee nag am daa di waxaat ndaw li nag na ko fobal nag Modou Mati mii nag delloowaat ko nag ci sëriñ Mor Binta Lo loolu itam nag tax na sëriñ Modou Mati nag daana wax ne lu masaa gis benn yoon dana ko mokkal ba tax na itam nag daana wax ne xasiday sëriñ Tuubaa Seexul Xadim yi ku ko mën a indil nag xasida nag gumu mokkalul wala xasida nag gumu jàngul dana la jox nag 1000 sëriñ Modou Mamoun Ñang nag nag bokkoon nag ci ni mu nekkaloon nag ci ëttub sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke bi wax na ne daa mas nañoo toog nag cib jataay ñu indi fa nag ak xasida xasida kenn ku ne nag bëggoon na koo xool nag ba gis ko bi muy wër nag ba egsi nag ci sëriñ Moodu Mati la sëriñ Moodu Mati nag di wax mbooloo mi na am nag ku ma ci téyeel nag ma tari xasida gi ci jëm yooyu nag la jaar nag ci wàllu njàngom alxuraan nag ba géeju ci lool muy waajuram sëriñ Moor Absolo sëriñ Moodu Kodde Diop ak sëriñ Maxtaar Bintaloo mu dellusiwaat nag ci loxoy waajuram waajuram nag moo ko dël ci dëkk coon nag ci wetu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ndaam loo dëwal ko fa nag ngir doomam ji nag féete fa ba looloo waral nag sëriñ Moodu Mati ñu ko daa wooye nag boroom ndaam loo ci dëkk boobu itam nag la wéy nekk ci ndigalul waajuram sëriñ Moor Absa Lo ba ni sëriñ Moor Absa Lo génnee àdduna ci atum 1941 mu wéy itam nag nekk itam nag ci dëkk boobu ba ni mu génnee àdduna ci atum 1969 soxna sim njëkk a dëkkool itam ci dëkk boobu itam nag la nekkoon ak mooma ku ñuy wax soxna Mareema Saara moom meññ sax taawu sëriñ Moodu Mati sëriñ daam loo sëriñ moodu mati loo nag amoon na ay soxna nag yu mu dëkkoo woon ci biir soxna yi mu dëkkoo woon nag ñu mën caa ràññee ku ñuy wax soxna mariam saar mook soxna mariam saar nag am nañ ak njaboota ci biir njaboot gi mu am ak ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ daam loo yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ moodu mati loo muy ku ñuy wax soxna faati loo mook soxna faati loo nag am nañ ak njaboota ci biir njaboot gi mu am ak soxna faati loo ñu mën caa ku ñuy wax sëriñ moodu loo faati yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ moodu mati am nañ ak ci biir njaboot gi mu amoon ak soxna Mbeen Géey ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Ummi Loo sëriñ Moodu Mati Loo nag yoraatoon na baneen soxna bu ñuy wax soxna Faati Loo mook soxna Faati Loo ba tey nag am nañ ak njaboota biir njaboot gi mu amoon nag soxna Faati Loo ñu man cee ràññee soxna Mati Loo bu Daarul Muxti ak ku ñuy wax sëriñ Loo Galo yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ Moodu Mati Loo muy ku ñuy wax soxna Faatu Cubb mook soxna Faatu Cubb nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Loo sëriñ na soxna muy ku ñuy wax soxna xadi sekk mook soxna xadi sekk nag am nañ ak njaboot ci biir njaboot gi mu am ak soxna xadi sekk ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ mbàkke loo sëriñ cheikh loo kodde maam ceerno loo soxna sala loo ak soxna màgget loo yoraatoon na beneen soxna nak moom sëriñ moodu mati loo muy ku ñuy wax soxna dàngura mook soxna dàngura nag amoon nañ ak njaboot ci biir njaboot gi mu amoon ak soxna dàngura ñu man cee ràññee sëriñ cheikh loo soxna soxna busa ak soxna binta bu mbuur yoraatoon na beneen soxna nag moom sëriñ moodu mati loo Mbàkke bu sëriñ Moodu Abib Mbàkke bu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mook soxna Ami Mbàkke nag am nañu ak njaboot ci biir njaboot gi mu am ak soxna Ami Mbàkke ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Lo bu États-Unis d'Amérique sëriñ Lo sëriñ Xaadim Lo ak soxna Lo yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Say Jaw mook soxna Seynabu Jaw nag am nañ ak njaboot ci biir njaboot gi am ak soxna say na bu Jaw ñu mën cee ràññee soxna Xadi Sekk Lo sëriñ Fàllu Lo di kim mu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna Mareema Lo moom sëriñ Modou Mati mook soxna Mariama Lo nag amoon nañu ak njaboot ci biir njaboot gim amoon nag soxna Mariama Lo ñu mën cee ràññee sëriñ Jiili Lo soxna yi nag mooy soxna yi sëriñ Modou Mati Lo dëkkoo woon njaboot yi itim nag la ci am mu wéy nag des nag ci dëkk bi ko waajuram dël di ndaam loo nekk itim nag ci wetu dëkk bi nag di daarul moxti ñeenti kilomètre nag dox nag digganteem ak daarul moxti ci dëkk boobu nag la wéy nekk di liggéey nag di yit waajuram di yit itim nag xalifay waajuram ak cheikh mamadul faadal mbàkke mi nga xam ne nii nag moom lay xoole xaadim rasool ginnaaw cheikh mamadul faadal Fadal Mbàkke nag la jël léppam nag jébbal sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad nekk itim nag ku sës nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ba tax na itim nag bokkoon na itim nag ci conseil sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke yi ci xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ki la ci jege gum jege woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ci yónneen itim nag bu ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke yónni woon ki la génne àdduna moom sëriñ Modou Matiloo ba tax na itim nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moo sàkku mu sëriñ moor absa loobi noonu mu jege woon sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke nu ko rawitim nag ni la meloon nag ci cheikh mamadul faadal mbàkke ba tax na mook cheikh mamadul faadal mbàkke jaar nañ fu bare bare bare bare bari loola itam nag waraloon na sëriñ moodu matiloo cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag bàyyi woon na ko xel ba na itam nag boole woon na ko président léopold sédar senghor mook léopold sédar senghor itam seenu jaxasoo na ba tax na nag lépp loo xam ne nii sëriñ moodu matiloo nag na ko wax léopold sédar senghor léopold fi teg baat noonee ko ko sëriñ Modou Mati Lo daa waxee ni la ko Léopold Sédar Senghor nag daa defee firnde bi rek mooy ku ñuy wax duudu caam ko amoon doole itam nag ci réew mi wala itam nag ku yu bare bare bari nag xamoon la duudu caam mi itam bi mu fi amee ay jafe-jafe ak Léopold Sédar Senghor sëriñ Modou Mati Lo nag moo wax nag Léopold Sédar Senghor na seen diggante nag jeex wala nag bàyyil nag duudu caam mii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci biir réew mi ñoo xam ne nii nag saa buñ am nag ay jafe-jafe ak Léopold Sédar Senghor sëriñ Modou Mati Lo nag daana ci doxo ginnaaw googu ko na nawoon nag ak bàyyi xel googu ko Léopold Sédar Senghor bàyyi woon xel tax na nag dëkk bii ko waajuram dëloo nag di ndaamloo nekkitim nag ci wetu dëkk bii nag di daarul muxti lu bare baree bari nag ci dëkk boobu nag di ndaamloo Léopold Sédar Senghor itam nag def na ko fa wala sëriñ Modou Matiloo itam nag am na ko fa téléphone itam nag sëriñ du Matiloo nag amoon na ko numéro bi nga xam ne nii moo nekkoon numéro ndaamloo nag ci jamono jooju numéro 05 la woon lii di magasin boo xam ne nii nag day denc nag lépp lu aju itam ci wàllu dund dëkk boobu itam nag di ndaamloo amoon na tax nag sëriñ Omar Lo nag lañ ko dénkoon nekkoon na itam nag ku yëngutu nag ci wàllu transport ndax oto buñ tudde 46 itam nag amoon na ko doomam sëriñ Mbàkke loo nag moo ko daa dawal ndox itam nag indi woon na ko itam nag ci dëkk boobu nag di ndaam loo relation boobu mu amoon nag Senghor nag ba Senghor defal ko loolu lépp nag ci dëkk boobu nag di ndaam loo bépp nit itam nag bu masaa jaaxle nag ci ak dundam ci wàllu ñaan itam daa nga ko seet si nag ci dëkk boobu nag di ndaam loo ndax kat barke waajuram sëriñ Mor Absa Lo nag mu ngi ci doomam ji nag di sëriñ Modou Mati Lo ba tax na itam nag koo xam ne nii nag mas ngaa indi ab jafe jafe-jafe nag ci moom saa bu la ñaanalee nag da nga ko gis loolu nag taxoon na dëkk boobu nag di ndaam loo nekkoon nag célébrer yoonu askan wi noonu mu amee relation ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke amee ak ba ci Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ni la ko amee woon nag ak ñeneen ak ñeneen nag ci biir réew mi loolu itam mayoon na ko mu bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Touba goo xam ne nii itam nag yéeme na at yee ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne nii kat moom mooy cosaan ci yoonu murid wi at mu jot saa bu masaa bay ba noppi dana ko génneel nag ak njabootam ak mbooleem responsabilité nag ci moom nag la nekk jébbal ko nag ki fi nekkal sëriñ Touba Cheikhul Xadim ni la fonke woon itam nag xasida yi ba képp ku masaa gis na nga yoru xasida ñaat téeméeram woo nag dana la dal dem na itam nag màkkatal mu karama ziyaara ji ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam nekkoon na itam nag transporteur bu mag ci biir réew mi amoon na ay kër itam yu takkoo takku nag ci réew mi moo xam kër nag ci dëkk bu sell bii nag di njaareem kër itam nag ci dëkk bii nag di bi nga xam ne nii nag fa la ko waajuram dëloon nag di mu nekki nag baykat bu mag a mag a mag nag ci dëkk boobu nag di ndaamloo am na nag ay góor yàlla nag yu mu nekk ndooloon ci dëkk boobu nag di ndaamloo ci biir góor yàlla yooyu mu nekkaloon nag ci dëkk boobu nag di ndaamloo ñu mën cee ràññee sëriñ Amar Kan sëriñ Baara Kan sëriñ Kàbbu Jaw ak sëriñ Abdu Yaasin ak ku ñuy wax Baay Laay Loo ak ñeneen ak ñeneen nag ñum àndaloon nag di liggéey nag ci dëkk boobu ko waajuram dël nag di ndaamloo nangoo liggéey boobu nag mu nangoon a def nag ci ndaamloo ni la fonke woon itam nag jaamu suñu boroom képp koo xam ci diine ji yaa gënoon a nekk itam na xaritub sëriñ Moodu Mati daana la teral nag daana la fonk weeru koor gi itam su masaa jot gone gi gën a woor gone googu itam nag la gën a fonk ba ci ndogu li itam gone googu nag day ndogu ba pare nag mag ñiy sax doog a ndogu xam na ne daal santaaneb suñu borom bi moo ñu tax a ñëw nag ci àdduna bi fonk suñu borom ak jaamu ko ku ci manoon rek yaa gën a nekk nag ab xaritam am na nag ñu ko tudde doom nag moom sëriñ Moodu Mati ñu ràññee ci waajuram sëriñ Mor Absolo tudde na ko ñaari yoon dooma waajuram sëriñ sëriñ Touba xaadim rasul la ba tax na nag amu ci woon sago lépp loo xam ne nii daal cheikhul xaadim nag laaloon na ko nag wala mu tudd ko waajuram sëriñ Mor Absa Lo nag bàyyi woon na xel loolu looloo waral nag njabootam gi nga xam ne nii nag cheikhul xaadim nag moo leen tudd ñaare nag képp koo xam ne nii daal cheikhul xaadim nag tudd na ko nag ci ay doomam kooka itam nag sëriñ Mor Absa Lo nag fayewaat na ko nag ak njabootam ngir barkeelu nag ca kàddu ga cheikhul xaadim nag tuddoon nag ca mooma moo waral nag Lo itam nag faye na ko nag ñaari yoon nag dooma sëriñ Moodu Faalo di doomu baayam itam nag tudd na sëriñ Moodu Mati Lo dooma sëriñ Moustapha Lo bu Bustaan ibnu sëriñ Mor Absa Lo itam nag tudd na sëriñ Moodu Mati Lo dooma ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay doomi baayam nag yu ko tudde dooma moom doomu soxna Mati Babi ci mag ñooñu mu jaxasooloon nag ñu mën cee ràññee sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke bi mu génnee àdduna sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moo wax sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke mu taxawu nag doomu sëriñ Mor Absa Lo bi di Mati Lo relation relation googu mu amoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke tax na itam nag tudd na doom nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mook sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ku sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nag bàyyi woon xel la daana demal sax ay yónneen sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ba bi muy génn àdduna yónneen nag bu ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yónni woon ci bi muy dem nag ci la defee nag sokk relation boobu mu amoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke foboon na doom ju ñuy wax nag Omar Lo joxoon ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu yar ko maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina sëriñ Moodu Mbenda Fall nag jébbaloon na ko nag soxna suñuy wax nag soxna faati cubb soxna faati cubb moomu ko sëriñ Moodu Mbenda Fall nag jébbaloon am nag sëriñ Moodu Mati nag ak njaboota ñu ràññee ci sëriñ Cheikh Lo sëriñ Omar Lo sëriñ Aadi Lo relation boobu mu amoon nag sëriñ Moodu Mbenda Fall nag bu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ci 1930 bi Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina génnee àdduna Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moo yabaloon nag sëriñ Moodu Mati Lo ngir mu bokk nag ci ñiy taxaw taxawu ginnaawuk Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ci ginnaaw nag bu mu taxawoo Cheikh Ibrahima Fall ba noppi la fasante kóllëre ak sëriñ Moodu Mbenda Fall mii taxoon na nag sëriñ Moodu Mbenda Fall jaxasoo woon nag sëriñ Moodu Mati mii ba faboon na soxna soos ñu leen tuddaloon nag di soxna Faati Cubb jibbaloon ko sëriñ Moodu Mati ngir mu dëggal nag seenub diggante Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku bàyyi woon xelitim la di sëriñ Moodu Mati Lo daana ko yónni a ginnaawuk Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ci atum 1930 bi fi Cheikh Fall bàyyi ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Faadal Mbàkke nag daana soxla nag lu bare bare bare bari taxoon na itam nag mu sàkku nag ci Léopold Sédar Senghor nag mu yoroon réew mi mu def ndaam loo googu nag numéro téléphone boo xam ne nii nag saa bu soxlaa nag Sëriñ Moodu Mati dana ko mën a jota relation googu mu amoon nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Senghor itam nag xamoon na ko ba amoon sëriñ Mor Absa Lo bi itam nag relation goo xam ne itam nag na tax na loo xam ne nii daal sëriñ Modou Mati nag bëggoon na ko ci biir réew mi te Léopold Sédar Senghor nag am ci saafara loola moom dana saafarawu ndax nag bëgg gum bëgg Cheikh Mamadou Fadal Mbacke wala nag bëgg nag gu ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bëgg taxoon na doomu yaay ngelaan ji itam nag ak cofeelam itam nag amuloon ak yemukaay ci doomu sëriñ Mor Absa Lo bi noonu ma ko amee woon nag njabootu Xaadim Rasuul gi ni la ko amee woon nag ñim bokkal nag sëriñ Mor Absa Lo moo xam ci góor nag ba ci jigéen njabootug maam Cheikh Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam kasaalika dëkk bi nag di ndaamloo ak daarul muxti ñeenti kilomètre dong nag moo dox nag ci seen diggante tax na yoroon na itam nag sëtub maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke di soxna Ami Mbàkke di doomu sëriñ Moodu Abib Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke na sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dooma dëkk boobu itam nag di daaru muxti itam nag amoon na fa kër ba tax na itam nag lenn itam nag ci njabootam sax foofu la ñu féetee yenn doomi mag ñi nga xam ne nii kat seeni waajur nag ñoo bokkoon nekk nag ci ëttub seexul xaddiim bi doomi mag ñooñu itam nag ñu ci bare bare bare bare nag doomu sëriñ Mor Absa Ndóo bi nag amoon nag ñoom itam ak jaxasoo ndax seexul xaddiim nag la kenn ku ne nag di xool nag ci sa morooma mu wéy nag topp nag ci ginnaaw waajuram sëriñ Mor Absa Ndóo ba ni waajuram génnee àdduna ci atum 1941 mu jël léppam nag jox nag ay xalifay waajuram ba ci xilaaf ak magam nag sëriñ Saaliw mu génn nag àdduna sëriñ moo Mati Lo nag laataa muy génn àdduna lu yéemee yéemee yéemee sax def na ko kër gi mu amoon nag ci dëkk boobu nag di daarul moxti lépp lépp loo xam ne nii nag ma nga woon ca kër ga da koo jël nag def ko nag ci ab camion yit ko nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke addiya di wax nag soxnaam soosu mu dëkkoo woon nag di soxna Faati Cubbu di ko wax ne nag damaa bëgg wut kër nag ci dëkk bu sell bale nag di Touba te yow nag laa fa bëgg a yóbbu nga di ma ko baleel ginnaaw buñ ci tegee ay fan la dem nag ci yónneenu sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi nakate nag kër ga mooy fee muy tëdd nag ca armeer yi sëriñ Moodu Matiloo nag mi ngi génn àdduna ci yónneen nag bu ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yónni woon mu àndoon nag sëriñ Fallou njaay nag xewar ak alaaji moor ba nag bu mbàkke bawal bi ñuy dem nag ba tolloog nag dëkk bii ñu tuddee Linguère la oto bi ñu duggoon nag def accident ñu yóbbu ko nag ci hôpital régional nag bu jurubeel di hôpital nag Lukke ci hôpital Lukke boobu nag la génne àdduna moom sëriñ du Mati Ba oto boobu ñu waroon nag bisub keroog nag bi ñuy dem nag ci yónneen bi oto bi nag ab 203 la oto boobu nag moom moo def soog nag ci yoonu Linguère wi moom sëriñ Moodu Mati Lo nag mi ngi génn àdduna bisub gaawu fukki fan ak juróom ci weeru tamxarit ci atum 1389 ci gàddaay gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tamxarit ci atum 1389 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 5 avril 1969 samedi 5 avril 1969 ci xilaaf ak Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw buñ ko yëgalee Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo wax nag ñu jëlee ci hôpital régional bu Diourbel boobu indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba rakkam Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke la wax nag mu jullee doomu Serigne Mor Absa Lo bi ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi gi ginnaaw buñ ci tegee ay fan nag la sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke woolu nag njabootuk sëriñ Modou Matiba gi di leen xamal ne ginnaaw bu fi état bi ñëwee wala assurance nag di leen laaj nag seen waajur wi ngeen ñàkk nag lan ngeen ci xalaata na ngeen leen tontu nag ne leen ñun daal soxlawuñ dara ndax lépp daal ndogaluk suñu boroom la noonee ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxee woon nag njabootuk sëriñ Modou Matiba gi ginnaaw bu assurance ñëwee nag leen laaj nag lu ñu soxla ci génnuk àdduna nag gu seen waajur wi wala lu ñu xalaat daal ci génnuk àdduna ak ko doon xamal ne ñun daal soxlawuñ dara ndax lépp daal xam nañ ne daal dogaluk suñu boroom la Serigne Modou Lo Mati nag ay xalifaam nag nii la tëddee lu ko dale ci atum 1969 ba ci atum 2013 Serigne Mbacke Lo nag moo nekk nag ab xalifaam nag bu njëkk ñaareelu xalifa Serigne Modou Mati Lo ci atum la nag ba nëgëni di Serigne Cheikh Lo ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu di Serigne Modou Mati Lo ak mbooleem nag ñu mu séqal Serigne Modou Mati Lo Serigne Modou Mati Lo nag am koy fàttaliku nag ci li ñu tudde ak màggal sëtam bii ñu tudde Maodo kan di doomu soxna màggetloo Lo moom sëriñ Modou Mati Lo moo jàpp nag ne maamam nag war naa am nag bis nag buñ koy fàttaliku mu waxtaan ceeg nag ñim ci war a waxtaanal ñu jàpp nag bisu fukki fan ak juróom nag ci weeru tabaski di ci fàttaliku nag seen maam ja mu ànd koog nag ay nijaayam ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ du Mati ñu koy amale nag ci dëkk boobu nga xam ne ni waajuru sëriñ du Mati nag moo fa dëloon sëriñ Modou Mati di sëriñ Mor Absa Lo di ndaam loo nag nekk nag ci wetu dëkk bi nag di daaru boobu itam nag lañu koy amale ci bëccëgu fukki fan ak juróom nag ci weeru tabaski màggal gi nag bisum ñaan la ñu jagleel ko nag sëriñ Moodu Matiloo mii seen maam bu ñu amee dara kat ci ëttub baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul wala bu leen dee tudd nag di tudd Xaadim Rasuul ginnaaw yàlla nag sëriñ Moodu Matiloo nag moom moo tax moo waral nag ay sëtam nag ak doomam jàpp nag bisu fukki fan ak juróom nag ci weeru tabaski di ci fàttaliku nag doomu sëriñ Moor Absaloo bi ñuy ñaan doomu sëriñ Moor Absaloo ba sëriñ Moodu Matiloo yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itim nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay cheikhul xadim amin cheikhul xadim